jërëjëf mbokki réew mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV yi mbokki kii ñu toogal mi ngi dëkk ci dëkk bii nga xamante ni moom la ñuy tuddee Sessène mu nekk ci ginnaaw mbuur ci yoonu Fatick wi muy borom xam-xam di kilifa goo xamante ni bëri na ay doomu daara yu ngeen xam ci dëkk bi ñuy jàngale wala ñuy def li nga xamante ni mooy ñaan yàlla jëmm ji toog moo leen ko eh, jàngal waajuram bu góor di kilifa moom nag mu yore daara ju bëree bëree bëree bëree bëri ñu jox ay dongo yoo xamante ni dongo yi ñii ñu ngi jóge ba Guinée Bissau ñu jóge ba Conakry muy def ci ñoom alxuraan mbokk yi muy kilifa goo xamante ni bokk na ci njëkk jàngale téere seet xeeti xam-xami seet yi yi mu ci yor bëri na li mu ci jàngale bëri na ba ñu bëree bëri sax dañ koy faral di ko gërëm sëñ ko dese yi. te nag ci dugg toolam yi la ñuy yóbbu ngir ñu war a waxtaanee lan mooy secret bi nga xamante ni moo mën a may nit ki alal lan mooy secret yi nga xamante ni moo mën a aar nit ki ba dara du ko yàq danañ dugg nag ci xew xew jamono parce que yi xew ci dëkk bi bëri na am na nit ñu war a faatu war wàcc liggéey yooyu yëpp danañ ci dugg ànd ci ay ah, leeral xuus ci leeral ci lu bëree bare bëri mais laata loolu dañuy bàyyi sëñ Codé Seye mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi sëriñ bi ñoo ngi lay. wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ dégg ñu ngi lay fay nuyoo bu baax a baax. waaye ah, di nuyu ak ziar ak di ndokkeel ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel fépp ci àdduna bi ci biir réew mi ak ci bitim réew di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bassir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di wax wakun moo zanlana min sarri siansadin ma sarri famin wa sarri an yàlla wa sarri sin wa sarri xaq insihimu mahjini wa suwat sumi yàlla aouzu billah bismillah inna wali yàlla ñu ngi leen di masa bu baax ci yoonu gudd yàgg wi waaw ndokkeel ñëpp rek bisimilah. sëñ bi eh, cosaanug Seeseen cosaanug àll bi nga ne ma daara ji ak àll bi fii bëri na ay kilifa ay ponkal ay góor yàlla yu fi jaar sàkku xam-xam ba am li nga xamante ni moom mooy sa ngërëm mën nga ñoo ñëwaatal ci cosaanu fi nga xamante ni moom mooy Sessène digganteem ak lasaraar waaye digganteem ak ñaan yàlla. jërëjëf suñ dégg ci laaj bu am solo boobu barab bii nga ñu fekk fii ci suñu daara muy Touba Darou Salaam Sessène waaye da ñoo fekk tey lu spécialiste loo xam ne mi ngi door am tey. muy ci fi nga xam ne fi la ñuy jaamoo yàlla. ndax suñ borom dañoo wàcce wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduuni li tax mu indi ñi ci kaw suuf mooy jaamu gi kese kese kese. ginnaaw bu loolu weesoo nag comme gi ngay def li ci bu loolu weesoo rek nit ki li nga xam ne moom la war a di dundee dafa war a doon lu lew loo xam ne da koy da koy xalaal da koy da koy lew da koy lew mhm. ba loolu tax na nit ki ngir mu mën a ñaan yàlla suñu borom mu wuyu ko ci ñaan googu mhm. faw mu doon ku sell ku laab mhm. faw barab bi nga koy defee wala ma wax la sarti ñaan ñett yi la muy nit ki mu sell ci boppam laabal xolam barab bi mu koy defee tamit doon fu laab fu sell muy lekk lu lu lu lew lu sell lu araam te ku ne xam na ni li gën a lew mooy ki nga xam ne day bay di ko di ko di ko di ko dundee comme gis nga fii tool yi comme lépp ngi ci biir nga xam ni comme li ñu yor li li ñu téye ñun mooy li ñuy liggéey li ñuy liggéey waaye nag xam-xam bi nga xam ne nag comme dañ suñ borom dafa dogal ñu am ko dañ koy jël di ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi di ci dimbali yàlla xam na ko bëri na ñu sell ñu jub ñu nekk ci biir réew mi ñoo xam ne bi ñuy sàkku xam-xam nga xam ni seet wala tur yàlla ismulahi ansam wala ñu bëgg secret boo xam ne ku ko sangoo tàkk maanaam say mbir di dox ngay toog muy dox te yàlla xam na ko boo ñu fekkee fii di nga xam ne man daw demuma di uti dara waaye lépp lu suñ borom tàggat rek lu suñ borom jagleel doomu aadama rek mu ngi bàyyikoo ci biir réew mi ak ci bitim réew mi fépp ci penk bi ak ci soow bi ak ci gànnaar gi ak ci di ñu sa fekk si fii nga xam ne ñun soxlawuñ dara waaye noonu nga ko waxee bëri na ñoo xam ne ñu jub lañ ñu képp koo xam ne yàlla dafa dogal nga ñëw ci man bëgg xam-xam muy nga bëgg mën a mën seet ci ramlu wala nga bëgg a xam li sixaar loo ci luñ la lu ci borom wan mu doon loo xam ne du teggee ko wala nga bëgg aw turu yàlla ismullahi ansam bu wér-wér boo xam ne boo ko doxalee da nga àgg ci yàlla bëri na ñoo xam ne ku ci ñëw ci yoon wi ñu lay teg mooy lii rek nga ñëw ñu wan la benn tool boo xam ne da ngay nekk di roosi ci li ñuy liggéey nga roose ba nangami at buñ la yewee nag ñëw jàngal la bu ko defee nag loolu dana la wan yoon woo xam ni yow boo jugee ci ñun danga doon ko defaru koo xam ni di nga doon ko defaru koo xam ni mm-hmm. doo nekk di caaxaan wala ndax xam moom dafa doon lu yaatoo yaatu loo xam ni yàlla xam na ko doon na lu yaatu loo xam ne daal xam naa ni dëgg dëgg dëgg dëgg ci liñ nekk dëgg kese la dëgg kese la mm-hmm. waaye nag comme jamono xam ni mm-hmm. li xam doy na waaye bëri daal ñoo xam ni ca yàlla am nañ ci loo xam ni wala jëmmi seet xam nañ ci loo xam ne ci ñun lañ aw ñu tërbiya leen jox leen la ñuy doxal ñu xam leen fépp ci àdduna bi fii lañ ko jëlee ci ñun fii lañ ko rootee. kon xam ko caaxaan. déedéet suñ dégg xam-xam deesu ko caaxaan moo tax bu ma gisee ku toog ci télé bi di wax naa nangam maye naa nangam li nga xam ni comme mag ñi bu njëkk bu ñu daan jot ci benn tur yàlla kese da ngay dem ci nit newetal ba nawet jeex mu jékkati tur yàlla jox la ko moo tax léegi ndaw ñu bëri na koo xam da nga koy jox tur mu liggéey ko ba sonn du gis dara ndax dafa am ay sart yoo xam ne da cee war a tege waaye nag ci kaw tamit nga xidmaal nit ki ba ba xolom sedd mu jox la ko jox la la muy àndal lépp ndax tur yàlla yooyu dafa am ci lu muy dox faaw nga xam waxtu yu ko war a liggéey faaw nga xam tamit turu rawxaan yi ak turu xuddaam nga xam tamit saraxam ndax am na ci tur yoo xam ne boo koy liggéey day aaje nga woor booy def tërbiya bi booy def riyaada bi an am na yoo xam ne tamit boo koy liggéey day aaje nga sol yëre bu weex tàll am na yoo xam ne mën na laa wax beneen couleur booy sol waaye yooyu yëpp bu maasee dajalowul rek ngir mën ngaa yàgg di ci sonn te li nga bëgg doo ko am. doo ah, bi euh, xam naa ne jàngaleb seet am na loola ci yàlla may mbiri xaatim tamit am na loola ci yàlla ah, bala ñoo ñëw ci garab yi ah, xaatim bi xaatimu lan la. waaw jërëjëf suñu dégg laaj nga laaj boo xam ne moom neex nañu lool wax dëgg yàlla ndax li ma doon dugal sànq lii la ñuy wax xawaati mu murabba. murabba comme lii moom bari na ci sëriñ si ñoo xam ne yàlla xam na ko boo demee ci ñoom. duñ duñ nangoo jël di bind. xëy na nag li may njëkk a wax xawaatim dafa doon lu ama am am solo ba tax na boo demee Arabie Saoudi ak yeneen réew naar yi lu tax ñuy aaye wàllum ñaan xawaatim xawaatim dafa garaaw garaaw goo xam ne ndax bu dee bii ma bind moom mu rabax la waaye beneen bi nga xam ne moo taaloon ab dëkk muy mu sallas xam nga nit koo gis rek ñeent juróom ñeenti bunt la am. Mhm. te xawaati musalas boo ko jëlee neuf neuf bunt la. Mhm. moo tax mën nga cee rey nit léegi barke alxuraanu karim bo ci boo ko xamee moo tax naar yi moom duñ ko caaxaanee. Mhm. kuñ kuñ gis nga koy def moom dañu lay tëj ngir dund. ndax bëri na jamonoy Sëñ Saaliw koo xam ne dafa ron nañ ko intervention. koo xam dafa demoon Arabie Saoudi doon fa def lii ñu ñu téye ko fa. moo tax ma ne la comme moo tax noob googu nga xam ne dama koy faral di liggéey ci ñett fan. Mhm. ku ma ci ak koo mën di doon président sax boo ko doonee. munoo fexe fexe ba rëcc. ci noob gi barki alxuraanu karim. ndax li ma la wax sànq comme juróom-ñeent bunt boo ko jëlee xam nga nit juróom-ñeent bunt la am. waaye nag xawaatim yooyu dafa am ñaari façon wala am na ba juróom-ñeent duggin. Mhm. am na lu ñu naan lawhu ak xutbu ak xalamu. Mhm. am na ci boo xam ne kunti yu lañ koy wax am na boo xam ne xazaali lañ koy wax. léegi nag bu dee nit ki da a jàpp boo jëlee turam ak turu yaayam ak bis ba mu ñëwee wax la soxla si. Hmm. comme bëgg liggéey tamit nga xam turam ak turu am na benn lim booy jëfandikoo bu ñu naan 5995 ñu koy ñu koy wax xaaral du surul kaw nii. barke alxuraanu karim loo bëgg ci nit. ku am soxna su dem. wala nga bëgg ci président de la république lu mu mën di doon. Mm-hmm. wala nga bëgg ci buur lu mu mën di doon. Mm-hmm. wala yow ku jigéen ki sa borom kër dem. moo tax la ma ciy liggéey ci noob googu ñett fan. Mm-hmm. barke alxuraanu karim kuñ ko defalal nit kooka dana la topp ni xaj di toppee borom na nga ko bëggee ndax lii du ay caaxaan comme li ma doon bind nii comme comme comme bëri na ci sëriñ si ñoo xam ne boo demee xam nga fi ma ko duggee fii laa duggee 759 yi 700 759 760 waaye bëri na ci tey jii ñoo xam ne ñi ngi nekk ci tele bi di wax boo leen joxoon xawaatim bi xamul fu muy duggee ndax dafa am fu muy duggee doon na kamaatara lay doon xam nga comme gis nga ni ma ko rëddee damaa dugal fii dugal fii dugal fii dugal fi dugal fii am na ñoo xam ne nag duñ ci xam loolu dañuy ñëw rek dugal dugal dugal te nag waaw te it comme musallas boobu ba ca ba ca ba ca ba ca ba ca <laughs> ba ca fam yem ba ba xawaatim yem amul lu ñu ci ump ci li ci loo xam ne ñun jàng nañ ba bañ jàngal ñu nit lépp nañ koy dugalee comme lii ma doon liggéey nii nag xawaatim bi li ko tax a jug mooy ñi nga xam ne dañoo nekkul ci diine islam comme li li ma dugal fii ñi nga xam ne dañoo nekkul ci diine diine islam xam nga bari na ñoo xam ne fi mu ne nii duñ ñaanal ab yéefar wala ab ab koo xam ne nekkul ci diine islam mm-hmm. waaye man moom dama cee am xaas goo xam ne ku nekkul ci diine diine islam lu mu am jafe-jafe wala problème bu ñëwee dama koy ñaanal ci kàttanu yàlla mm-hmm. suñ borom faj aajoom ci ci ci lii nii comme boo xoolee comme xawaatim bi li ma ko wëraleel mooy juróom-ñaari turi sawara yi nga xam ne juróom-ñaari juróom euh, bunti sawara yi nga xam ni moo moom la suñu borom suñu borom amal mm-hmm. muy jahannamu jahim saxi saqar lasa xëwiya xutuma comme loolu moo war xawaatim bi moom lañ dugal ci biir ginnaaw liñ ko booleel leneen lii comme ku nekku ci diine islam bu ñëwee wax ma soxla ak lu mu critiqué critiqué bu ma ko ñaanalee suñu borom da koy wuyu ci lii lii ma ko ñaanal ci lii nii sëñ euh, ginnaaw seet euh, yàlla dogal na nga jàngal ci ñu bëree bari ba nit ñooñu sax ku yem ci ñoom rek di leen seetloo sax jaru sax ngay ñëw ci seen code de sëy kon yow mi nga xamante ni yaay ndey mbill gi yaay bopp bi nit ki boo ko xoolee war nga xam démbam xam tayam xam li bëgg ñëw ci moom. waaw waaw jërëjëf sëñ sëñ sëñ dégg comme comme seet moom. xam nga alquran dane wa a kulli si hilmin xalim comme nit ki lu mu am ci xam-xam am na ku ko jege te ëppale ko xam-xam fuuf loo ci mën di xam rek am na ku la jege koo xam ne moo la ko ëppale fuuf waaye daal li may wax moom man kenn ku nekk yaa gën a xam sa bopp donte xam nga ma lool waaye maa gën a xam sama bopp ginnaaw moo weesoo sama bopp nag suñu borom moo gën a xam sama sama bopp waaye xam naa ne daal nit ki lu mu nekk ci ay xat-xat ak jafe-jafe lu ma ko wax ci listixaar moom ci li muy dund ak li ci kanamam moom du dañ ci kàttanu yàlla seet moom loolu moom xam naa ni moom teg naa ci sama loxo bi waaw loolu moom maa ngi ciy sant sama borom ba eh, ma bëgg ñu dugg ci li nga xamante ni moom mooy euh, tobb buy ne ma tool bi li tax ma fonk ko li tax tool bi yenn aajo yi fii koy fajisee mooy garab yi ma soxla yëpp dafay nekk gis naa fi lu mel ne ay euh, siddéem gis naa fi lu mel ne limon waaye tobbug buy leeral la nit ñi lan mooy tobbug buy laata ñu ñëw ci njariñ yi nga xamante ni moom la tobbug buy di def waaw jërëjëf suñ dégg muy muy muy muy muy tobb bu ma ko waxee mooy loo xam ni dañuy wax ne yëfu jinne la wala yëfi rab la mhm. looloo tax mu mu garaaw comme bëriwul loo koy gis muy guy gii da nga may jëlal guy gi nga xam ne fii ci sama tool bi la sax tayit mhm. bëri na fi bëri goo xam ne bëri na fi bëri goo xam ne ci yeneen i garab yoo xam ne ay tobb la mhm. muy li nga wax noonu muy siddéem muy limon muy mango muy darkase muy yeneen muy new te naa la xamal lenn ci garab suñ dégg am na ci garab yoo xam ne duñu rat maanaam fu ñu toll dañuy am doom looloo tax ku koy jëfandikoo faaw da ngay am alal ci kàttanu yàlla gis nga guy googu nga ma jëlal tobb tobb nekk ndax tobb bu ñu ko waxee mooy loo xam ne xam nga guy moom xam xam xàmmee nga xobam ni ni ni mu baaxoo mel mooy loo xam ne ñett terrain lay def yu yaatu waaw waaye comme boo xoolee lee comme guy ngay seen waaye beneen garab nga gis mu sax ci kawam léegi nag ne nii moo tax yëfi jinne la waaw mën nga koo gis ci garab léegi dem dem dem di xool loo ko utee ñëw doo ko fekkaat hmm. moo tax barke alxuraanu karim am na sangat gu ma ci liggéey muy tobb guy gi hmm. muy geneen tobb new wala poftan wala yeneen yeneen hmm. am na lu ñuy bind ci kàttanu yàlla kuñ ko jox moom alal moom alal moom alal moom di nga ko di nga ko di nga ko doyal ci kàttanu yàlla déggoo li ma la wax boo ko sangoo boo ko sangoo laa wax barke alxuraanu karim comme doo ñëwee kenn ci xaalis président ak ministre yi député ji comme loolu moom xam xam naa ko xam naa ci man sama jëm man sama jëm bopp. mais suñ ko de garabu euh, si déem déem damay dégg mag ñi naan déem nit mënta ñaan yàlla bëgg a faj aajo ci garab te jëloo déem def ko mu sa ngànnaay lan moo tax déem war a nekk ngànnaayu sëriñ ak déem yan njariñ la am. waaw suñ dégg jëf ci laaj boobu xam nga euh, li ma wax sànq rek comme suñu borom moom lu mu wàcc ci kaw suuf rek am na lu tax mu wàcce ko. Mm-hmm. xam nga garab yi dafa am yoo xam ne dafa ami dafa ami dëkk am yoo xam ne amuti dëkk waaye ci am dëkk moom siddéem moom nga tudd ci la ci la ci la bokk waaye mu doon garab goo xam ne dafa dafa dafa mën ñaari côté muy mën loo xam ne lu ñu naan dafon la mën loo xam ne lu ñu naan jalb la dafon nag bu ñu ko waxee mooy loo xam ne day jañ day dàq maanaam lépp lu ñu la defoon ci lu bon boo ko am na yoon woo xam ne boo ko ci awee liggéey ko lépp lu ñu la defoon ci kort njabar xërëm cat ak làmmiñ da koy dindi ñu nee jalb nag mooy loo xam ni da lay ubbi maanaam day yéwénal say mbir day jàppale say mbir mhm. muy ubbeeku mi ngi ci ubbeeku nag ñu ko waxee mooy loo xam ni bayra da cay ànd mhm. te nag doonul bayra boo xam ne moom bayrab kese kese kese kese kese la ñun yi ñuy defar day ànd ak bayra boo xam ne bayra bu am njariñ la mhm. ndax ni ma koy faral di waxee comme fexeel ba am ba am ba am alal rek alal moom boo ko amee suñu borom li ci suñu borom dañ la jox mbindeef yi alal boo ko amee dama koy faral di wax ñu bëree bëri. waaye moom ga siddéem gi nga tudd daal. man xam naa ci loo xam ni moom itam ci kàttanu yàlla ak ndimbalam ku ko jëfandikoo moom. millionnaire mën nga ko mën nga ko doon moo yeneen ak yeneen nag muy garab yi fi waaw loolu moom daa am ay ay ay ay ay ay ayaati muy àndal tey bëgg naa ñu dugg ci li nga xamante ni moom mooy kattan suñu ne kattan euh, ngóor a nekk loo xamante ni góor gi faaw mu yor ko ngir mën a jariñ li nga xamante ni moom mooy soxnaam am ci njaboot gu barkeel waaye ñu bari gaaw a jot seen bopp gaaw a daanu bokk nañ ci leen sonal yan saafara nga jàpp ne moom moo ci gën a gaaw pour saafaraal nit li nga xamante ni mooy néew kàttan. waaw jërëjëf suñu dégg ni ma koy faral di waxee man nag du ma paradis tradi tradi paradisien waaye nag ab ñaankatu yàlla lañ. Mm-hmm. waaye nag ci kaw bi ñu jiitalee sart yi nga xam ne mooy sart ñaan. yàlla dafa dogal ñu yàgg dox ñu yàgg wër. waaye képp koo xam ne daal yaa ngi ànd ak ndoxum siti wala émérite. wala ngay gaaw a daanu nga gaaw a sa bopp. Euh, suñu borom dimbale ñu ñu ci loo xam ne kuñ ko jox. ci kàttanu yàlla moom di nga sant suñu borom daal. xëy na am na loo xam ne sax dama koy bañ a wane daal. waaye kon dinaa la ci waneel ay preuve yoo xam ni waaye xëy na loolu du neex a wane. waaye ci kàttanu yàlla képp koo xam ne yaa ngi ànd ak gaaw a daanu te loolu eh, eh, ndoxum siti rek moo koy joxe mhm. muy émérite boobu ndoxum lépp ndoxum siti rek moo moo mooy ndeyu jàngare yi moo koy joxe mhm. waaye képp koo xam ne daal yaa ngi gaaw a yëg sa bopp am na ci loo xam ne bu ñu la ko joxee ci kàttanu yàlla moom di nga di nga ci kii ba doyal daal ci kàttanu yàlla incha allahu taala tey lan nga ñu mën a wax ci eh, li nga xamante ni moom mooy ah, doomi limon wala xobi limon waaw jërëjëf limon moom itam bokk ci garab yi nga xam ni comme ñaari façon garab rek mooy am mooy li ma wax sànq mooy gu ami dëkk ak ak amuti dëkk. Mm-hmm. moom itam limon dafa bokk ci garab yi nga xam ne dafa am dëkk. Mm-hmm. waaye moom itam am na lu ñu naan tur yàlla wu ñuy wax boo ko moog limon dañoo am ay lien ñoom ñaar am na ñoo fi dégg ñoo xam ne dañoo am tur lool wala ñu am mbooloo. Mm-hmm. am na ay tur yu ma ci yor yoo xam ne am na yoon woo koy awee loo ci liggéey loolu nag tur yàlla lay àndal. yàlla xam na ko gox boo nekk di ko fa liggéey suñu borom dana leen not mu neex leen mu naqari leen. loolu moom xam naa ko ci li moom. suñ ko de euh, lan moo gën a gaaw gën a jege euh, gën a jàppandal ci mbirum xëccoo xëccoo suuf wala xëccoo jabar wala xëccoo ab dëkk wala xëccoo alal wala nga jàng pare sax di xëccoo ay pos. waaw loolu lépp suñu dégg dañuy dellu delluwaat ca la nga xam ni mooy cosaanu ñaan yàlla rek mm-hmm. xam nga nit ki moom bu ñëwee te xamoo lan mooy aajoom wala lan mooy jafe-jafeem. Mm-hmm. bu bu ma bindoon kaamil bi ñetti yoon jox la ne la sangool naanal takkal. Mm-hmm. mën nga koo def doo gis dara. Mm-hmm. donte nag maa faral naa fil kitaab min say in suñu borom nee na bàyyiwuma dara ci sama téere bi. te it moo waxaat walillahi asmaul husna fad'uhu biha ne boole ma soxlaa dee leen ma woo ci sama tur yi. 1999 non yooyu ñu xam. waaye suñ dégg nit ki aajo bu mu mën di am wala muy xëccoo. bu ma jëlee turam ak tur yaayam ak at yim am. bu ma ko defalee listixaar dana ma teg ci yoon woo xam ni bu dee lu muy xëccoo la muy bëgg a nekk président wala suuf su muy xëccoo suñu borom dana dana ma ci teg ci yoon woo xam ne bu ma ko ci awalee wala mu bëgg ay kayit wala muy xëccoo loo xam ne soxna laaj ak yooyu yëpp suñu borom dana ci teg ci aw yoon woo xam ne bu ñu ko ci awalee li muy xëccoo dana ko dana ko jël ci kàttanu yàlla ak ndimbalam. Euh, sëñ bi nan nga gisee avenir Ousmane Sonko ci politique ndax ku ne xam na ne boobu ba léegi digganteem ak Adji am na taas taas bu ci nekk boo xamante ni yaakaar naa fekk setul euh, wër ta mën a nekk euh, président ñenn ñi ne jamono ji sunkoo def ñu teg ñenn ñi ne dafa am liggéey ñenn ñi ne est-ce que jàpp nekkul ne dañ koo laal ci baatin parce que coow li tamit daa mel ne wàññi ko na. waaw ah, jërëjëf sëñ dégg ci laaj boobu mu mel ni ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey ci turu yàlla yenn saa yi nga tëdd ba guddi wala nga nekk ci sa kuris ba gudd suñu borom am lum la xamal am lum la xamal ndax bari na ñoo xam ne loolu ñuy wax vaar la xuma bañ dalee wax yàgg na waaye suñu borom mi ngi ñuy suturaal ba loolu mosuñoo dal waaye li ma mën a wax daal xam naa ne moom moom bidd bam fenq na daal fenq na wuti kaw moom Ousmane Sonko Ah. waaw biddiwam daal fenq na waaw te jamono yi ci ginnaaw am na lu ma waxoon ne buñ ko mënee def ci ñeenti xiblay réew bi ñu def ko waaye daal man moom maa gis Ousmane sonk toog ci ab siège boo xam ni loolu moom ku biddiwam fenq rek moo cay toog waaw waaw waaw euh, garab tamit nekk na mbir mu yéeme ah, yan xeeti aaya moom la ñu composé yenn garab yi nga xamante ni day dox ci wàllum këyit mbirum nit ku nekk bitim réew bëgg visa bëgg euh, li nga xamante ni moom mooy carte séjour wala passeport wala ku nekk fii sax bëgg voyage. waaw jëf suñu dégg loolu moom ñu nekk bitim réew. moom xam nañ ñu ci wàllu këyit bu baax a baax. ndax suñu dégg li ma la wax sànq rek comme nit ki bu tawatee. wala muy ut ay këyit wala nit ki tawat tamit. nga bëgg a xam tawat ji dana wér wala du wér. wala nit ki di sàkku ajo ajo ju mën di doon nga bëgg a xam dana dana ci jot wala du ci jot. loolu moom barki suñ Tuubaa dama cee yor seet yoo xam ni nit ki bu tawatee léegi dama koy xool xam wax la tawat ji lan la tey dama koy xool mën laa wax day wér wala du wér te kenn du ko dindi barki suñ Tuubaa nit ki tamit bu amoo bu amee aaju ju mën di doon moom itam dañ koy xool wax la kenn du ko dindi day day sotti wala du sotti waaye daal li wérti wóor garab goo mën di jël am na aaya bu mu tollool ci alxuraan li ma ci indi nag mooy waswasoor xam nga waswasoor boo ko jëlee waswasoor boo ko jëlee mooy mooy mooy garab gi moom itam garab gu garaaw la ci ci ci ubbi nit muy waswasoor gis nga ko nii. léegi boo ko jëlee am na benn aaya bu ñu naan wa yansuraka llaahu nasran aziizan nga xam ne mi ngi ci suuratul Fath. Mm-hmm. nga xam ne wax nañ ne ci Fathu Màkka ci ci ci ci ci saar ci la wàcc. Mm-hmm. wa yansuraka llaahu nasran aziizan gis nga lii moom aaya la bu leer naññi. Mm-hmm. wa yansuraka llaahu nasran aziizan moog lii waswasoor bii. ah wéyoon sur la nasran hasan bi boo ko calculé bii waswasoor bi. cent 818 la lay jox. waaye sur la nas boo ko xaddadee moom itam 818 la lay jox. léegi nag lii lii. boo xamee lim doon dëgg dëgg dëgg. nit ki du la mu bëgg la muy sàkk du suñu borom du ko jox barki alxuraanu karim ndax lii boo ko jëlee comme boo demee ci garab gi boo ko nuyoo ni nga koy nuyoo ba noppi ut li nga koy jëndee. ba àggee ci garab waswasoor bi. maanaam da ngay da ngay wattu xob yi ginnaaw nag boo boo ko nuyoo ni nga koy xam nga boo wattee nii xam nga yaa ngi gis comme boo defee nii comme boo sànnee léegi da ngay xool xob yi nga xam ne dafa dafa ubbeeku maanaam xam am na yoo xam ne dañuy dëpp am na yoo xam ne dañuy ubbeeku yi muy am na loo ciy liggéey barki suñ Tuubaa millionnaire di nga ko doon wala milliardaire millionnaire di nga ko doon wala milliardaire kenn mënu ci dara. kon suñ ko dee euh, bu ñuy wax ci wàllu ñaan li nga gën a mën mooy def nit ki millionnaire wala milliardaire koo xamante ni narul woon a am nga defal ko wërsëg. barke alxuraanu karim lu ñu ñu mën la te defal nañ ko ay alxuraan moom kenn du ci waat ay caaxaan te ñun ci la ñuy xëy di ci gont ci lañ judd ci lañ yaru ci lañ màgg. suñ ko de lan ngay tàggatoo ak looy wax askan wi lay suivre ci MPROD TV. xanaa suñ dégg santaat yàlla bu baax a baax julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu borom réew mi jàmm ji mu ci def mu gën ñu ko fee saxalal bu baax ak ci bitim réew fépp. te ñu bàyyi aaya bi suñ suñu borom wax muy wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasatan ñëpp nañ ko gën a bàyyi xel bu baax a baax di leen jaajëfalaat bu baax ci yoon wu sori wi di santaat yàlla bu baax daal di ñaan jàmm di ko ñaanal ñëpp di ko sàkku ci ñëpp di nuy ñi nga xam ne tamit ñu ngi ñuy bàyyi xel ndax yenn saa yi da ngay tudd da da ngay nekk guddi xaaju guddi nga nekk sa kurus nit wala nela la dama doon wér du ba àggal moo tax ñëpp a lay bàyyi xel moo tax ñoom itam ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax di ñaanal ñi nekk hôpital yi ñëpp ak ñu nekk ci biir prison yi ñëpp ñu ngi leen di fàttaliku. tey yooyu tamit am na ñu ci bëgg a waxaat waaye xëy na comme xataay bi. waaye ñu ngi ñaan bu baax ci bis weeru màgg bu tedd yu ñu jëm muy weeru sax ramadan al mubaraka nga xam ni fukki xaaj yu am solo la fu ñett fukki fan yoo xam ne fukki yu am solo la muy jéggal ak goreel la ci sawara ak ak ak ak yërmande comme ñu ngi ñaan suñu borom mu àggali ñu ceeg jàmm ñu li mu ci digal lépp muy sax ramadan al mubaraka suñu borom li mu ci jublu muy laxalakum tattaxuna ngir ñu ragal yàlla suñu borom defal ñu ko ci hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ay ci mbokk yi dégg ngeen waxtaan wu am solo wi nga xamante ni Serigne Codé Seye waxtaane na ko mu nekk waxtaan woo xamante ni lépp njariñ la te lépp ngëneel la ah, muy kilifa di borom xam-xam di ko xamante ni àll bi la xam àll bi la miin mbokk yi fii li mu fi yor ci ay tool bëri na tool bu nekk ak yemu ci liggéey xeeti garab yemu ci jëmbat yëpp moom lay jariñee jaami yàlla yi moo koy jëlal boppam moo koy daggal boppam ndax xam-xam ak dimbali jaam ñi rek moom moo ko ñor gis nga ko mi ngi noonu ci xob yi nga xamante ne moo nekk ci kaw guy gi xob yee nag bokkut ak xobi guy garab la gu sax ci kaw buy wolof di ko wax tobbug buy dégg ngeen njariñ yi mu ci wax dégg ngeen ngëneel yi mu ci wax ne moom la garab googee ah, di def sëriñ Codé Seye borom xalima di jàmbaar dëkk ci dëkk bu sell bi nga xamante ne moom mooy Touba Darou salaam CSN. Ah, numéro di leen xamal ne ñaan yàlla nii la rek ñaan da koy jar ñaan nit ki da ci jëriñee sëriñ ko desee gis ngeen ko àll bi lëndëm na àll bi mett na waaye fii la nekk dafi faj aajo jaam ñi nit ñi di ko fekk mu leen di dimbali te ku yàlla dénk baatin la. Ah, gis ngeen ko mu jigéen noonu ci tobbu guy gi yor li nga xamante ne mooy xobi tobbu guy gi xamante ni ci àll rek lay dox mbokk yi numéro téléphone sëriñ bi mu ngi noonu affiché ci suufu écran bi képp ku ko ci woo di nga ko jot. mbokk yi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yi yàlla na ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah